man ak délégation bi ma àndal muy le ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye ak le ministre Dame Diop mi yore artisanat ak formation professionnelle ci ndigalu président de la république di la nuyu di la ziar ñëw ci ndigalam moom président de la république ngir jébbali fii ñaari këyit yi nga xam ne da ngeen ko waxtaanoon yoog moom fii muy suñu ñaari bërëb yu tedd yi nga xam ne waxoon nga ko da nga bëggoon ñu defaral ko ay titre foncier muy benn bu nekk kër gu mag si jumaa ji ñu def ko si tuuru Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul beneen bi nga xam ne moo nekk Mbakke xewat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 accès ci ñëw jébbal ma kayit bi loolu maa ngi ciy am cant nu gu réeree nag ndax cant goo xam ne mag njaboot Sëñ Tuubaa gépp ko bokk liggéey la liggéey liggéey liggéey boo xam ne liggéey Sëñ Tuubaa eh, ju réy nag eh, joo xam ne eh, maa ngi ko ci sant di ci gërëm ndax xam naa ci yéeneem ak yitteem ak taxawaayam bu sëg sëkk waaw kon maag njaboot Sëñ Tuubaa gépp ko bokk ñun ñëpp na koy gën sant ci taxawaay bu euh, di ñaan nag suñu gën ko gàttandoo ko. taw feex ba lim semb lépp. yàlla yombalal ko ko yàlla defal ko ko. maanaam ko na sax nu gaa nu kaw njortam. loolu ko ñaanal bu baax a baax a baax euh, li mu jëf ci noonu ngir sëñ Tuubaa sax na waaye jëf ju mujj ji nag moom moo moo lépp. ndax moom dara génn ci Sëriñ Tuubaa dara génn ci njabootam te jëf ju la kon li mu li muy def ci man ngir Sëriñ Tuubaa bare na lool waaye ji moom mooy ji nga xam ne moom moom moom moom mottali na lépp dara ci dama ko sedd dama gën naa dal dama gën a yaakaar gën naa dolliku di gën am yéene ci moom di gën di ko gën ñaanal itam ñaanal ah. moo xam li bëgg waaye lu ko xam ko yàlla ko gën a xam yàlla defal ko eh, dool ko ci ndam dool ko ci ndam dool ko ci barke loolu rek la <laughs> loolu rek la kon yow maa ngi cant gi ne maa ngi jabog Sëñ Tuubaa képp ku bokk ndax jëf jëf ji di tool demee noonu jëf ji toll noonu jërëjëf te it sa sa sa sa yéeneeg sa yitteeg sa taxawaay ci ci lépp loo xam ne mu jëm ci sëñ bi loolu yow jiitu yàgg na yàgg na sama diggante ak yow si daal nii la ko président sant rek ni nga ko ni nga ko defee ndax fekk na ma xam ci lu jiitu sa sa sa sa taxawaay ak sa yitte ci ma jërëjëf jërëjëf